léegi ba tey ñu ci sirul akbar ci paas ñaar fukk bi ak benn ñu ngi ci gis bu ba tey wa noori du daañu rotal xunaa fii nag asalaata ak julli al mos euh, mosmaata bañ tuddee al mosama bañ tuddee al mosamaata bañ tuddee bi jëw xëratil kamaali jaw or bu mag bi lañ tuddee julli gi fuñ ko def ma ci sayidi rijaal yi ci tagg nga ne mooy sangu góor yi allati bi nga ne talaqaa jot na ko sayidna suñ sang bi alxadmi atijaaniyati mam ko jot moom Cheikh na Tijaani min alxadrati ca péey ba almuhammadiyati muhammad xadratu muhammadiya lima tadamanat min asraari alxaqiqati almuhammadiyati xadratu muhammadiya lu naqaree xam nga xam nga xaqiqatu muhammadiya ak xadratu muhammadiya xadratu muhammadiya moo waxta ay julli gi jëlee ko ci asraaru xaqiqatul muhammadiya nga xamante ni mooy euh, xaqiqa muhammadiya bi ca kaw kon julli gii na ma ko waxee xam nga ne moos rasulul xaq bi ak rasulullaay bi euh, duñ tagg seen bopp kon kër indi julli gii moom moom mooy koo xamante ni mooy numéro trois su ma yeboo ma ma man de man ko ko dégg loo tax mu dikk par trois trois xëy na rahmati xëy talaat làq bi làq ndaxte julli ku nekk mm-hmm. dañuy seet ka ko julli ka fam nekk fa mm-hmm. ak ña mooy mm-hmm. ko déggee rek yow mi xam ne yaay ko maarifa ak xam ne julli gii ki ko moom mooy kii kon nag julli googu moom la ñuy euh, bëgg a allahuma yow allahuma salli wa sallim defal salaatu wa salaam ala ayni rahmati ca nga xam xam ne mooy jëmmi yërmaande ja moom jëmmam ja léppam yërmaande la vraiment ba rabbaaniyati a rabbaaniyati ni yërmaande rabbaaniya la waaye du yërmaande insaaniya nite yërmaande borom ba nag moom ah xoolut kii sopp na ko kii sopput ma kii jege na ma kii jegewut ma kii faale ma kii faalewut ma ci kilifa la kii du kilifa kii ku soof la wala ku safari la walla ku saf la yoonam nekk ci loolu moom yërmaane nga dafa ko jox rek ndax lool moo ko war kooka laa bëgg nga defal ma julli ci moom wal yaaquutati te mooy or ba almutahaqiqati bu dëgg ba wal yaaquutati almutahaqiqati or bu dëggu lu tax muy or bu dëgg mooy xaqiqa yëpp jëmam yëpp xaqiqa la dara manqué ci léppam dëgg la ci dëgg la nekkee xaqiqa ñu ne ko kooku mooy kan ki may wax ne alhaa iti ci moo ndar képp wër fépp bi markasil foo mi centralu liggéeykaay ba ka nga xam ne moo ko wër ba mën laa gis centrale bi moom nga mën a gis xam nga poste courant boo demee tabax gi ko wër ngay gis waaye nag li nga xam ne mooy courant ba machine ba nga xam ne moom la ëmb gisoo ko kii nag centrale lu liggéeykaaye bi nga xam ne looy dégg foofu la bàyyi ko moo ko na moo ko wër ba mën la ko gis moom nga mën a gis xam nga lii moo lay xam ne kon centrale téléphonique ba ko tijaan yi génnee ba tey caat yu mujj ñu doog a génn nag central téléphonique ah. Ah. ah te ñun suñ bos bi ah ak seen bos bokk mm-hmm. central bii moom mm-hmm. benn central la waa asamaan ak waa suuf waa yépp moo leen di jox ay communication mm-hmm. ay milliards yi message day ñëw mu jàll kenn ku nekk jot sa message te du jaxasoo xel kooku nag soo ko xamee ci ngay déggee ne wa ma arsalna min rasuli illa bi lisaani qawmi yi masuma yónni aw nit lu mooy làngu nitam lay waxee moom yónent ba su fekkoon ne ay eh, kii tëggin bi dégguñ ko kon xanaa dañoo wax ne kon ñun yónent bi arab la ñun wolof lañ yéen si sama ko ci xanaa arab rek la waxat waaye de de centre téléphone ak ñi nii na na bu bu mën naa wax ak bambara bambara mën a wax ak soose soose mën a wax ak wolof wolof français anglais bay lu tëj lépp te kenn du jaxase sa morom ndem tubaab bi def centre moo man loolu ak yàlla mi nga ne moom moom mooy mooy mooy moo moo généralisé <laughs> ah kooka nag ci la ñuy fii moo xam ne ñoom mbër muy dikk rek ñu gone ñoo leen gën a dóor mbër ndax fi ne Sénégal a ngi a fi génn Sénégal indicatif bi da nga dugal indicatif fi ne réew mu ne xam ne indicatif am bii na xamal indicatif direct la <laughs> foo nekk ñoo leen man waay ci lu wér <laughs> ah yoo leen man du ñeel morom kon nag kooka moom ba ko Cheikh di wax tariqa tijaan benn tariqa ma su ko wax te beneen tariqa du ko wax waa ji ma bëgg nga defal ma salaat nag moom moo wër kapp daj kapp central boobu markasi foofu yow moo wax ni yow mar centratique maanaam fu nga xam ne boo sànnee kàddu ko nopp yaa koy dégg mooy fóom wal maani ak maani ñu ne luy maani maani mooy di ànd yow te kat ma su koo gis mooy sa suru sa rowu sa xel sa xol sa nit sa juróom yooyu mooy maani benn central bi moom moom moo jox waa biti jox waa biir mm-hmm. moom moo ndar képp central bi nga xamante ni information yay daw ci biti ak yi daw ci biir moo ko joxe ah léegi moom mooy secret secret mooy ruuxul ruuxu mooy xelal xel mooy xolal xol mooy nite nit moom moomu de moo tax kooku nag benn waay feeru ko ci kaw ne ko coutume yow da ki ko ki ko moom moom borom yàqule jawatu commande bi kër dem na ko ki ngay tëkk aleykum salaam coutume ta dañ naa nëpp fi hadraat xaq ci hadraat xaq lay sa si wàllu muxtaar yu dul ko laa jot laa insun wala amee ko duñ ci gine ku la mën a jot foofu ndaxte foofu pays maana yi nag laakin tey layta lil aqwaani fi ngeen jib ma pay maana yi pay mooy bit yi nga di leen jox kon nag lii lay xamal ne ki tëgg jawharatul kamal ak ki woy woyoo ñoom ñaar ñoo bokk kàdduwaay ndaxte kii moo dikk central bi nga xam ne moo ndar képp dégg-dégg yi ñooy déggee ci biti ak dégg-dégg yi ñooy déggee ci maanaa ci biir kii dikk ne ko yow day dañ laa nëbb ci hadratu xaq kenn xamul ko mi maxtaal waaye nag tëjali nga ci akwaan yépp nag nga àgg ci ñoom waaye ñaari wax yi xam ne boo gis nga gis nga boolaa balaa ngay dugg ci wax yi gars yi ne man man maay bàyyi wala maay Cheikh Tidiane wala maay ah war ngaa xam li gars yi wax xam nga ne wax yooyu le yow ko loo ko a lijjanti wala sax lijjanti kooku laa bëgg nga def lu salaatu ma ah moom ndax loolu rek mooy liggéey mu ne déedéet wa nuuril akwaani mooy leeru nekkitee fi almutakawinat yi nekk al aadam yi taxaw comme na aadam yit bi taxawee kooku moom ba mu defee liggéeyam ci communication da def liggéeyam ci électricité kon ba tey électricité ñun bañ koy wax ñoom électricité waxaguñ kii may wax nag moom international la moo yore communication biti ak biir mooy leeru nekk ak waaye almutakawir ci xam nga buñ ñun buñ ne leer dañuy foog ne mooy lumière leer ci yàlla yàlla mooy leer mooy ko xam ki xam nga loo xam doo ko gis ah. bi maanaam buñ ne moo nekk leeru nekk teefi bi maanaam moo nekkee nekkee nu nekk mm-hmm. lu ñuy xamal ne nekkee nu nekk teefi aadama rek moo taxaw di aadama law ci aadam li nga ne mooy li nekk teef yépp ah, kon nag yow soo xamoon foofa aadama moom nam génnee dafay wane këré ram kii may tëgg ci jawritu xoolal aadama nam taxa benn aadama génn lépp loo xamante ni kat nit ñi dañu foog ne aadamaam <clears throat> xarab fasat bi naka wala ay malaaka dafa am déedéet <laughs> benn aadama wa daa min daabbatin fil ardi mm-hmm. amul luy teg tànkam ci suuf dox ah. sànqale yeeg ah. mm-hmm. ah. la ko gën a rëy wala taa'irin yatiiru bi janaahihi amul ko am ay laaf ci kaw moo xam ne yeeg ko gën a rëy illaa umamun amsaalukum lu mooy ay nation lañ comme yéen doomu aadama yii ah léegi nag la génne ñële ci fii mm-hmm. ak li bàyyi gaa doomu aadama yi ci fii moom lañ waroon xam benn waay ba nag mooy leeru nekkite du du ki nu nekkite yépp cee leeram nga lay ngeerloo loo déggee ci leeram nga leerloo mooy ci amam nga lañ amee al mutakawinati xam dafa taxaw comme aadama yi boo xoolee aadama nam nekkee lépp génn lépp moom nag aadama wax naan la moom dikk pour pour pour fa amal dafa dikk pour wane ki nga mooy jëmmi xaa ita foofu ki nga xam ne mooy ak waali kooka aadama dikk wan ñu taxawaayam ndax benn aadama dikk ñu gis ca nag xawaa gën ca lu génn ba milliard sept milliards tey ak lu tegal ñu ci kaw suuf mm-hmm. ak mi yi nga xam ne milliards yi ñu ci suuf yëpp ah. ci kenn ka lañ génne mm-hmm. loolu moo ñu xamal ne kon tawhid boo xam ne mën ngaa def ba jëloog moom ah. soo demee ba xam aadama loolu ak waa ne almuttakawi na ci aadama yi mm-hmm. soo ko xamee ci nga xam tawhid boo xamante ni tawhidu baatin tawhid tawhid janoo ah. tawhid bët boo tamit dégg-dégg tamit boo ko di ci dégg-dégg rek doo am tamit ah man dama ko dégg rek waa dégg rek xam nga xam nga léegi nit ñi dañoon seet ashhadu an laa ilaha illallah xam nga buy seede ci arab buñ ko doon ci wolof sax soo demoon ca tribunal ba ñu ne yow yaa seede mu ne seede naa ne waa jii moo ko def ñu ne lu tax nga ne moo ko def nga ne maa ko gis xam nga dox de doo maa ko dégg sax de maa ko gis ah. maa ngi teew mu def ko ma gis ko ah. loolu mooy saxaan ah. waa léegi nag nan nga dikk ci nga ne seede ashhadu an laa gis li nga wax <laughs> ko seedee da ngaa xëy dégg naa ne waaye bul wax ne maa seede maa janoot <laughs> ndax seede moom loo janoon la kon nag sa waaye <laughs> ki nga borom yow kamal de moom yaakaar naa ko dégg uh-huh. danga xam ne noonu la demee de uh-huh. kii mooy noori aqwaani almutakawinati aadami ñu ne ko yow borom tëgg gii sa waa ji moom jàgginaaw kaañ bi nu mu fu nga ne mooy kan ki may wax saahibul xaqi mooy borom xaqiqa arabaani yi xaqu rabaani yi la yore moom xaqam bi na laahu dikkee ne maay laahu maay rabbu maay rahmaan moom xaqam ba xaqiqa xaqab rabaani ya ndaxte lu tax boobaa xàqu moo dikk xàqee ko dëgge ko xam nga duut dafay nekk xàqu nekk xàqu moo dikk xàqee ko koo tax ba xàq xam ba bokk na suñu xàq bi ñun xàqi xam xabal xàqi xam nekk la xàqi xam rabbani ah sa waa moom gën ma koo leeralal ndax ma gën koo xam ki may wax albarqi mooy melax ka al askaay yaa xam ne moo naan tay fu mu naan tay bi mu soonil arbaa yi ca niiri bénéficiaire foofa la melax xam nga jëm du melax ko gi melax ci nga xamante ne kon nag melax gi dem melax taw bi ñëw asamaan ci xiim melax gay melax dënn yi dënnu daf ñuy fàttali waa jooja bu fekkee ne njëkkewut doo def loola asamaan ak bi tëj bi nga xam mooy bis bi ci suuf du ko man lu amul ca kaw du am ci suufaay boo déggee taw baa ngi ci suuf si dafa bàyyi ko ci asamaan taw boobu da bàyyi ko ci asamaan nag dafa am fu mu bàyyi ko moo tax kon nag kooka laa man de al barqil astay bi mu sóoli arbaay niir bénéfice niir bénéfice xam nga mooy lan yaakaar yi xam nga yaakaar boo yaakaar su yaakaar ba fayoo mm-hmm. melax googa moo ne ca cay dégg mbir ma sotti ah saxaa di mucc kon nag kooka ni nga gisee nag kon bu yaakaaree ndox melax gën a tay ci xiir ma dañuy ne rig rig rig ndox ma sotti ko kooka nag xam ne mooy melaxu melax ya nag moom laa wax albarkal asel bu sol almaali ati ki nga ne moo duyal ba mu fees li kulli mutaaridin ñeel képp koy taataankat moo la duyal ba nga fees ah léegi nag dafa am taataankati biir ak taan taataankati biti ñi ci biti nag ñi nga xam ne mayekati biti moom xamul lu mooy biti mën naa laam xoos dox la su ko deful doo am doo mos dara de kii nag moom moom mooy duyal waa biir ak waa biti sësiru bii bu soxlaa saroo gii bu soxlaa sa xel mi bu soxlaa sa xol bi bu soxlaa sa nit gi bu soxlaa moo leen duyal bañ fees ndax mas ngaa ku leen may ñoom moo tax bu tax na saa waaj ñoom ñu am problème <laughs> dégg nga moo tax kat gis boo gisee waa bu toon dund bu booy gisee ñu dund ah moo tax de na ah, ay moo moo leen sotti ah lu tax na minel minel boori wal awaan yi minel boori ndab yi wal awaan yi bii maanaam nit ñi kenn ku ci nekk a ah, ni ko ah, waaja feelo ba tawi allah ndi nga ah, mooy mooy mooy lan mu ne bi qadri ma tuhibu hoo tanaalu am daado ho fal qawmu haa saqaalu xam nga nit ñi ñoom de lii mooy lii mooy lii mooy ñaari kilifa yi déggoo xam nga borom joo dafa dikke ne kii mooy duyal taataankat yi yi andi ndar yi tool nekk géej ak ndar yu ndaw yi mu ne yee kaay balaa ngeen taataani moo xam leen ndab ngeen bëgg ndab li ngeen di yóbbu bi qadri ma tuyibo ni ngeen ko bëggee waa ji joxe tanaalu ngeen di am am daadu wala muy joxe la yow soo demee daal am mbëggeel goo xam ne mille tonnes la nga xam ne ndab li mën na yaatu na mën nañ def duy mille tonnes mu doyal la ci mille tonnes soo indi ndab loo xam ne milliard tonnes mën na ko duy mu doyal la ko ndab loolu nag lu muy tekki mooy maaba sa mbëggeel gu rëy gi nu mu gën a yaatoo ko nga xam ne dafa am mbëggeel si tuuti soo xam ne dafa tolloo benn pot maa ngi xoolaan léegi benn muxtabar muxtabar olama yi borom borom xam-xam yi àddina bi yàpp nga daje ci Turquie def conférence boo jël ci yonent bi yow balaa nga tudd euh, euh, président réew ma nga nekk mm-hmm. nga da nga ne son excellence <laughs> wala da nga am saadatu rais <laughs> yonent bi nga ko tudd allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim au lieu nga doon nga ne nga di ko sàllalu <laughs> yow xamal ndab la ngay tuuti ne ah ñun de dañ ne allahumma salli wa sallim ala ayni rahmatik ñun loolu kooku nag moo tax ndab bi ñu indi kenn indi ko ci billahi li ma la ndab li eh, eh, ahmad eh, ah, wilaay bi indi wilaay tijaan yi indi benn ndab ki indi ko ci këram ko kon nag moo tax lañ ko sottal duñ ko sottal kenn min al buhóori wal awaani aa ah, yow nag si jullikat bi man de danga maa jax xam nga def ko def wa nóoril ak waali mu ne jeex na mu ne déedéet wa nóorika allaami allazi malata bi kaw nag wa nóorika mooy sa leer yow ci sa jëmm ci allaami gay mel kat allazi yàq ne malata bi feesale ko ko kaw naka sa nekk ki bi maanaam xaqi Muhammad yëpp nekkam gi leer ga ko duy ba mu fees muy xàqatu amadi ñu tuddee ko xàqatu amadiya yow yaa doon leer boobale kon nag kooka laa bëgg man mii ah bala xam naa xam naa waa ji def julli gi moom itam bëgg na duli moom fii nii ah li ko ko wax ci man nga defar ma julli ci moom kon lii moo lay xam ne waa ji ñaari ñaari ñaari ñaari loxo la wa nóoril ak waali mooy saayir wan noori kalaame la si ma la si bii kaw naka mooy loxol baatinam kon nag bal yadaahu mabsuusataani ah waxuñ yàlla de yàlla doo wax yàlla yoroon ñaari loxo <coughs> damaa bañ kenn dégg yàlla wax du yor loxo mukk kon nag kañ nga kan la ah kooka de waaye du yàlla de loolu du loolu du nit kooka du nit kooka du ko juddoo Fass wala mu juddoo Sénégal wala mu juddoo Màkka déedéet kooku moom beneen waay la boo xamante ni ba Sénégal ay nekk Sénégal Fass ay nekk Fass ak Maroc ak Tunis ak di ba Makka ba ñuy laata amat fekk na moom def na la muy def yépp kooka de nga ne ko yow ah ki nga xam ne moom nga duyee ki ma bëgg nga defal ma salaat ki xam ne moom nga duy sa nekk gi alhaa itatu gi ne sa nekk moo moo fee yow bi am ci natil makkaan yow sa fe nekk yow moo fekk place yi nu ma la koy misaalee xam nga yaram wi mooy alxaaita bi markasil foofu wala yaram wi mooy noori akwaal yi wala yaram wi bu la noori kàllaame gi ci malaka bi kaw naka léegi nag yaram woowu peeg dafa am kum peeg moo peeg place yi mooy ruux du ruux la peeg roow moom itam boobu du ma peeg li nga xam ne yul moom yëpp kooka nag laa xeex ne moom moo peeg place yi place ah man de yow seen julli <laughs> ah xanaa li nga war li nga julli war naa jeex ma ne dee dama am benn ëtt benn benn monde bu ma nekkoon di wër monde booba nag laa laa ko indiwoon julleem mooy monde ba ca kaw a kaw dégg nga monde numéro un ci laa doon tourné maa ngi dem ci monde numéro deux hmm. ñu ne waaw kon dama dama delloo ci wax moom mu ne xanaa déglu ma rek allahuma yow allahuma salli wa sallim defal jullit ak deux mooy salaatu wa salaam xaalaa talxatil xaqi bi ci fenkee koy xaq dégg xaalaa xay mi xàqoon la ca jëmm ji nga xam ne mooy jëmmi xàq xam nga aynu ak saatu buñ la ko wax xam ne kon xayun foo ko déggee mooy ka saayiroo ka saayiroo yàlla xam nga moom ne awalu de aaxiru dafa am saayiru saayiru googu nag mooy xaynu awalu aaxiru ndaxte xam nga awalu ba mu tey aynoom mooy aaxiru aaxiru ba mu nekkee aynu feeñut te moom bëgg naa feeñ mu indiwaat nag saayiru saayiru da xaynu bi nga xam mooy mooy jëmi ah, aaxiru bi mm-hmm. kooka laa bëgg nga jëlil man xaynil xaqi jëmmi xaq ah yow jëmmi xaq moom mooy kan allati ki nga xam ne tatajalaa génnee xéena min haa ca moom lan moo ca génnee xuruusul xaqaayiqi ay xaras yi dëgg dëgg xaras yi xaqiiqa seen xaras ñeenti xaqaayiq kenn ku ne bañ dikkee nag ndekkee ñoom kenn ku bëgg a génn si caaras ko nga jaar doo génn si ñeenti xaqiqa ya kenn ku bëgg a génn doxali sa xaqiqa yaa ngay génne caaxara kooku moo nekk moo nekk moo nekk na xaaral sàkka yi moo tax bañ nekk ci butuun fa mu nekk ci kutimta foofa loolu la fa doon doxal mu génne xaaral xaaral si àq yi xàq yépp ñu jaar ci moom génn moo tax huwa mooy ëwalu huwa mooy aaxiru huwa mooy zaayiru huwa mooy bàttnu ñoom nag ba mu nekkee huwa ca ñeent yooyu nag kenn ku ne jaar ci moom génn ku ah? kooka nag seeta rek kii kii ki kii kii kii julli borom julli kii kii nag mooy urusul aqaay moom laax de moo tax kii ah dëgg-dëgg yàlla su fekkoon te ni mano ñeme woon nañ ko man nañoo jël bépp wuy bépp ah, wax joo xamante ni ah, jawaratul kamal wax na ko man nañoo génne wuy woo xamante ni mooy wuyu xalaat suñuy bi wuyu wi dafa dëpp wax ji waaye nit ñi bu boobaa dañuy dem ñu foog nekkoon nag nangam baadu ndax dañuy fiir sax dañu bëgguñ ko ñu fiire nag <laughs> dañ bëgg ah dañu fiire bàyyi de waaw dañu fiire waaw xanaa gars yi xanaa waa kër waaye moom xanaa ñu foog ne déedéet déedéet <laughs> déedéet suñu waxul loolu de ñun dëgg la ñu wax lii xalalu yàlla bàyyi xalalu yàlla la wilaay ñu wilaay euh, alalu yàlla ñun ay jaami yàlla lañ jaami yàlla su fekkee xalalu yàlla waaye waaye na ci jël rek te bañ caa wax naa fii la jaar fii la jaar su liñ sa yoon yow kay na dugg sa loxo rek te <laughs> xaaju faju rek loolu la li ñu def nag <laughs> ah kii ma ma man mooy waxuma xaras de waxuma xarsu xuruusul xarasi xaqiqa yi mm-hmm. moo tax gis nga kii bi mu nekkee fii nii mm-hmm. ah, dafa xawal dafa nekk ci kat miyatoom mm-hmm. kenn mun te jaar fenn te jaaroo ci moom te ba nga faa jaar doo yëg na jaar naa fi loo tax mu doy waar nag moo tax ba nga fa rembee ba nga fa rembee dikk ba nga fa rombee dikk ne allahu mu ne xul waxal ne huwa mii nga romb nii allahu mooy laaw mi nga jëm si ah waaye loolu la ko <laughs> loolu la ko xam koy wëgg nag mënu ko tekk nag kooku ñu ne mooy huwa nag mooy xuróosul ak xayek nag te huwa moom jombut kenn huwa moom diw huwa moom huwa moom huwa yépp mën nañ ko kon nag mooy minaa xuróosul ak xayek ñu ne ko ah xanaa foofu yem mu ne déedéet xaqaayiq yi bañ bàyyi ko seen xaq yi dem seen martaba ya ah. mënuñoo doxit te na sàngul leen de mm-hmm. moo tax aynil maarifi mooy jëmi xamee kaa yi ñu xamee ah. ndaxte xaqaayiq yi soo bëgg a dëggee bi mm-hmm. ci ñoom ngay jaar ko xabi càqu càqu mm-hmm. looloo tax boo dikkee na boo moom boo ci dem kat xaqiqa boo ci dëggu da nga koy da koy da koy seppi sànni ah. soo ko seppil sànni doo dem de kon nag da ngay dem da ngay def taaxu boo demee taaxu ci àq bi rek xàq day dem xam nga xàqu ak xaqiqa yow boo dikkee ci àq bi dàq xàq bi xàqu dàq xàqu nekk fa rek ngeen juboo mu ne waaw jàllal nag seetal demal demal foofu mooy numéro un mu demal ci numéro deux seet nga dikk fekk numéro deux dafa rëddee fa nekk déedéet nan xàq déedéet nga dikk nag xàq nii ngay demee nag kon ku la jaar ku la jaaral ku la dimbale ba ngay jàll ci xàqaay kan la xanaa waroo la xayri waaw léegi nag génn naa ci fële dikk naa ci beneen ëtt fii waaw fii fan la fii de ah ñi ñu war a xàmmee de gars yi ñu war a xàmmee fii moom koo fi xamul ko fii moom ëtt bii boo leen xamul fële moom xamoo leen waaye fii moom il faut nga xàmmee leen moo tax li ma la wax ne il faut nga am leen te dool fi amal da ngay dàq xaqaayiqi ba buñ dikkee taxee fii gannaaw juumoo la ci xurusul xaqaayiqi doon jiw ci aynul maarif waaye nit ñi mën nañoo xàmmee aynul maarif ak xurusul xaqaayiqi lii nag moo tax jàng jawharatul kamal ak firi ko ci téere ya taxut nga dem dangay dem ba fa jawharatul kamal jawharoo nga bàyyi ko fa xam ne ah, ah lii tey mi ngi nii waay kii nag mooy aynil maarif al aqwam ji gën a jut nag foo jaar fu fii doo amaat moo tax ku la gën a ku la gën a xam kii moo la gën a nekk xaarif mm-hmm. ku la gën a dëggu ci kii moo la gën a foor ci xaqiqa ñaar yii mm-hmm. moo tax boo bëgg a jaar fële nag mm-hmm. ah na Ibrahima defoon ngay def rek soo lakkoon na Ibrahima lakkee ah, contre gaayee ñu jàpp ko rey sànni ko ci safara mu lakk dee te dee ko da nga jaar foo de mm-hmm. ngay jiitu la Ibrahima soo wàccee fii nag nga tudd nag aynil maarifi ba xamee ko fi ñu ne ah Siddiq ñëw na waaye Siddiq ñëw na Siddiq dëggalkat bi ndax yow yaa ma waxoon yaa ma d'accord doon fële fa gën a naqaree neex naqare gëmee yi nga gëmaan fii ci fii ci moo a ne kii a gëmee ndax su jox loxo ngeen joxat ci loxo <laughs> ah ñu ne ah ina la seen yu bàyyi yëpp laay fokk lo loxo loxo laaw ci loo kum tegee ah ci teg loxo seen loxo kan la laaw ah ah ñu ne maa man lañ gis ah yow soo xamoon loolu moo tax su fekkoon déggoon nga xay nil ma aarimi soo déggoon xurusul aqaayka soo déggoon xay ni rahmati billaay dana gëm alquran waaye billahi laa wax hmm. képp koo xam ne xam gëmee ko fii ah. man laa gëm alquran da ngay wax rek ah. ndaxte buñ la nga jàng alquran mokkal ko firi ko ba bëgg dee hmm. te buñ ne yàlla yàlla moo jox loxo moo leen jox loxo ah. nga ne déedéet da yow yëpp xiiféer nga di yàllaa leen maa leen jox loxo seetal seetal bu fekkoon dañoo digg sax balaa hmm. inna lazina wér na ne seetal mag lu ko yitteel bu la ci waxee daf na wér na ne ñi nga xam ne jaay moom inna maa yu bàyyi mu indaal beneen inna mm-hmm. wér na ne jaayante allah lu may laax laaxu rek nga jaayante kii billahi mm-hmm. ku ko jaayanteeg moom jaayantoo kenn laaxu nga jaayante ñu ne mu ne yëddu lay ko bàyyi loxo laaw moo tege sa looye mm-hmm. ah ah ah lii de wax dëgg yàlla ku ko mënta gëmee fii ci jawwatu kamal nag ku ko gëm fële mën ngaa gëm jawwatu kamal waaye ku ko gëm jawwatu gëm fële doo mën a gëm jawwatu kamal kooka nag mooy siraatika ataam al asxam yu gën a jub ci jub yi gaa yi naan asxam mooy soq bi ji firi feebar waaye istiqaama kay yow nag bu fekkee ne dangaa wax ne grammaire xanaa grammaire moom moom bidaa la ndax grammaire tu ko indi ak saaba kon lu ñu ne bidaa la war naa sukkandiku bidaa de de dàq yoo xamante ni bidaa la kon nag askan bi mu ngi jógee ko ci istiqaama ah fii de yàggu doo fi moom waaw fii moom dama koo taxay rek fan maa ngi demaat ci beneen julli ban allahuma ma ne yow allahuma xanaa yow da ngaa demaat ci beneen kër ma waaw demaat naa ci beneen ëtt nag mm-hmm. ndaxte benn benn waaye laa fekk boo ko fekkee fële mooy ay rafet ma tun dikk fekkaat ko fii ndeke moo dikkaat ko xay na xaq mm-hmm. ma dikk fekkaat ko fii mm-hmm. mooy talaat xaq bi xaq kon ndax yow nga toog naan yonent ba ci woon màkkaat wali woon nangam loolu am na fi kenn fi nekk rek yasharu min shay'in ala shay'in la daa shay'in wa qadra wa bal waaye maarifa damaa bëgg nag ñi nekk ci kër bàyyi ñes gi nag nañ bàyyi nag séddale yàlla ay cëri cër yaay séddale yàlla ay cëri cër su ko defee a ilaha ma la def nekk de amul benn rek fi nekk ba nga demee ci diina ji diina ji al islaam ma itam du ma romb de ayn rahmati aynul aqi talat laq bi laq ah nga ne ma yow dégg nga xam ma ne ko wax dégg naa ko de kii ma lay wax ne defal nañ salaatu moo boo doon wuti xaq soo dajeeg moom jàppal moom la xam nga léegi bu ma doon seet baaba ma seen photo ba seetu seetu ba baaba ba seet jëmmam ji seetu ba xamal ne su ma bëgg a xam baaba naa ko xamee fële bu ma koy xamee rek xam naa kuy baaba ah loo de mooy li talxatil xaqi bil xaqi wa bil xaqi antala wa bil xaqi nasara kon nag ci xàqu laa ko wàcc ci xàqu la wàcc mm-hmm. ah mm-hmm. kooku laa wax ak talxatil xaqi bil xaqi mm-hmm. ah yow de sa waaj moom nga ne kooku bi mu nekkee foofu mooy al kansil azam mooy kën su bi nga xam ne mooy kën suyetul kunóo si bi njàngoon fële ah moom mooy magasin wu magasin yëpp ah moom la kooka laa ba nga defoon salatu moom de julli ci moom de soxlawuma fii soxlawuma fii tey fii laa ko soxla moo tax selo kama raaytumuni usalli ba nga xamante ni wax nañ ko waxul ne selo kama sami'tumuni usalli julli leen ci man na nga gisee ma jullee jullee waaw boo julli ci islaam wala boog ci nubuwatu ak julli ci wilaayatu ak julli ci xilaafatu ndax wenn julli yin la ah xanaa yéen waaye day bu njëkkee fi ñun allahuma salli ala bale ñu waxoon ca daay euh, daayit nubuwa yonent bu julli ci boppam ndox allahuma salli ala muhammad kon yonent bi dafa nekk sangam bi mm-hmm. du toog ci kanamam sangam ba ne ko yàlla julli ci sa sang bi Seydina Omar ñun ñoo koy wax kon loolu mooy salaatul ummi ba mooy salaatu Ibrahima ba kon nag ëtt baa laajoon bu fa siyaat dugg yow nag nga dikk na nekk ci ëtt yaa ngi nekk ci ëtt yow yow ngay jaam ah? moo tax jaam bi yaakaar ne moom moo ko xamul ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin kooku el faati mu dox mu dox mu dox tànkam ba jeex ci ëttam boobu ba mu dikkee fekkaat ko ci beneen ëtt boo xamante ni da nga maam kenn xamul loo ko mën a wax mu ne allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati allahumma salli wa sallim ala ayni aqi allahumma salli wa sallim ala talaat laq ndaxte fii ñetti jullee fi daw salaatu ba mooy bàyyi ko ci yàlla salaatu la tudd waaye ba mu dikkee ci muhammad salaam la tudd bamba bàyyi ko dikk ci wilaay bi mooy àll bi mu tuddu rahmatu ba mu fa bàyyi ko ne dikk bi nga xamante ni mooy ci xilaaf xilaaf bi mu dikk nag barakatu barake kon salaatu ko dafa am salaatu ëwalu salaatu aaxiru salaatu saayiru salaatu baatinu yow nag waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu léegi tey nag yow bu fekkente ni yow yaa ngi dikk fekk ma ngay jullee ci salaatu ëwalu ko jullee xal noonu soo dikkee mooy julli jullee saani ñaareel ga te mooy salaam ba jullee xal noonu soo dikkee fekk mu julli nga xamante ni mooy troisième ba julli xal noonu soo dikkee fekk mu julli ci quatrième ba julli xal noonu waaye yow na nga taxaw ca euh, euh, gannaaw xam xolo moom mi ngay jullee kër kooku si yow yaa nga taxaw rek yow amuloo julli jullee ko di <laughs> moom ma nga ci julli ngay continuer yow nga taxaw nga fa ne yonent bi naa taxaw la ilaha illallah ay waay yàlla ñel fa la fa yàlla fayal fii walaay li yëpp ku la ko may toppe toppe toppe ku mat topp laa de toppe ku mat a topp mooy problème kii mooy kan al kanzil a'zam ah, woo moo gën a màgg ci kunuus ñu ne ko yow na sa jullikat bi yow na sa julli gi na gën a leer ma ne la ki may wax nga defal ma salaatu mooy ifaadatika minka ilayka xam nga lii bu ko nit ñi xamoon bu ñuy julli ci ka ñu julli ka dañuy xam maqaama fardaaniyatum ba wéetaayam ba fii mooy maqaam wéetaayam maqam ki ñuy def talaat maqam xam xamuñ kan la ah xanaa ñu ko xam-xam lañ ko moom <laughs> ifa ki may wax nga defal salaatu mooy ifaadati ki nga xam ne mooy faydu min ka ilayka xam nga ifaada bu ko waxee dañ fa ne faydu mooy sur mbut mbool mooy daw ki nga xam ne jëmmam ja moo dikk taxaw de jëmmoo sa jëmmu ja mooy faydu faydu jëmm doon xam nga faydu mm. faydu dañu fa faydu jëmm lay doon faydu mën na ah faydu nangam jëmmi nangam jëmmi alal ajir fu yoodal ilmi wal arsaaqi ah faydu warsak du ma warsagal kër boobu kër gu kon faydu kër gu taxaw faydu jabar kon du faydu bi jabar la léegi faydu doom du kon faydu bi jabar léegi du doom léegi faydu ay milliards kon ay milliards léegi kon du nekk faydu wokk dafa nekk mbóot moo xam ma ngi cee ron ma ngi cee biir eh, ma taa yoo bëggee dem ko mbóot mbóot mbóot mbóot rek <laughs> lool de du <laughs> loolu de fay du loo mën a joxanteel loxo la man koo sa soxla kooku mooy ifaada di ko min ko ilay ah yow dang nag sawaa ji moom mooy kan nga ne ixaatat noori mu tal sa gis nga la julli gi doo ko agsi ki xam ne moo peeg leer gëñ lëmas ga leer gëñ lëmas mooy lan firi naa ko lu yoon yer du jeex waaye taay ma ko dikkee dama ko gën a firiwaat leer goo xam ne mi ngi nii ñu koy xool ak la muy leer leer xamuñ mooy kan ka loolu mooy in al insaan insaan ma nga xamee ne mooy insaanu kaamil bi nag ñun xañ na nuñ koo gis boo waaye insaan mu ndaw mi nga xam ne moo ko présenté soo dajeeg moom asalaamaaleykum waaleykum salaam ndax xam nga ki nga ah, nit la loolu nga ca xam de <laughs> waaw léegi nit mi nga daje ba nit ci nit ñi la ah. xam nga xar moom boo dajee xar rek xam nga ne xar nga dajee mënul paas lu mooy xar béy béy rek la nag nag rek la fas fas rek la mbaam mbaam la ak li yàlla amal yëpp kenn ku ci la nga doon nga doon waaye nit nag moo dikk ndar képp yooyu yëpp léegi nag nit bi nga dajee kan la ci xor nit kan la loon ci ñooñu <laughs> ah aha kappee kooka nag laa bëgg a defal ma sala ndaxte bu la defal su kekku cookoo di nga kii lañ mu kii ni nit mii hmm. lañ lay mujjee defal salaatu suñ la ci defal salaat ci nit bi doo xam ko nit ndaxte salaat lu ko tax dikk yëpp mooy tekki la loo xamu doon rek nga xam ko loolu la salaatu jëriñ kon nag kooku laa bëgg nga kii xanam ki ma bëgg nga defal mooy kii moo peeg leer gu ñëw li ma laa ñaan nag sallallahu yal na salaatu ali ci moom di nga fii ah, amul am na salla yal na julli ala xale ci leer gii leer gu ñëw waala ali ak aalo mba moom leer geeg fu nga xamante ne moom la leeree xee te mooy aalom ba salaatan julli yin boo xam ne boo ñu ci julli rek toarifu naa dañu xamalee bihaa ci julli yin wa iyaahu moom leer guñ la mas gii billahi li ma képp koo xam ne dafa ne salaatu ci seen leer guñ la mas gii mënoo ci xam dara kon nag leer guñ la mas gii defal ma ci salaatu yow laahu ndax ñu xam ci moo tax waaw léegi nag boo nekkee ci pays nit bii war fee julli julli goo xanam ci ngay xamee kuy nit ki nga bañ ne doo julli julli googu pour julli googu ndax da xam kuy nit ki moo tax ñuy contre tijaan yi damaa defe dañ leen leeral luy tijaan yi taalibi Cheikh tijaan yi xamul luy ti xamul luy tijaan yi su fekkoon ni xamoon nañ do dayob salaatul fatiha ak dayob jawharatul kamal ah kon niñ ko ñàkkalee fayda niñ ko oyofalee nii duñ ko oyofal kon dañ fonk nga xam ne lii mooy wëlër nga xam ne mooy wëlëru àddina ak àllaaxira xanaa xamul ne doo fekk nit képp koo xam ne fonk na lii mm-hmm. ah nga nga mbokk ci nga xamante ni day day day day froissé mm-hmm. day ñàkk fayda mm-hmm. du am man de man mii di wax a yow <laughs> ah depuis soixante ah. xam nga ne ba waxal laal ah. ca jumaa ah. laa jël wedd wi euh, euh, euh, tijaan yi wasifa foofu laa commencé ci ci kii la may nekk ci daara ji nekk xale may lan mbalaan wasi su pare ma doog a dem ci doole jàng ba ma dem ndar ci loolu ba fa may wax ak yow nii maa ngi ci ah, allahumma salli wa sallim ala indi rahmati rabbanit te day alhamdulilahi a miskin ci miskin nag waaye nag xam nga ne 66 ko 60 ku mu nga nekk kii nekk jaw ji ah waroon ngaa nekk koo xamante ne xëy na ñu ne waaye day damaa wax man de du ndaw ci man de du ma daw du ma tëb buum du ma daw ci fekk géej <laughs> te kuñ dajeet ma raw la <laughs> ah ñun waaye ñun dañu gëm ni yéen ñun talxaati xàq bi làq mën naa fenk ci yow ngay ñàkk doole wa aye naaw bi ruuxul quddus ruuxul quddus mën na laa doole wax nga ñàkk doole waaye jër waaye nit ñi damaa bëgg nag tijaan yi damaa bëgg nag tijaan yi ñi nga xam ne bu ñu nekk tarixa bi bu ñu nekk tarixa bi da ko jaxase nañ gëm li nga xam ne mooy doole tarixa hmm. loolu nag firi naa ko firi mu gën a gàtt hmm. boo demee ci yenn firi gën naa guddaat waaye nag ma yem ci foofu rek <laughs> ah, léegi nag bàyyi ñes nag bi ñu ne jëwatu kamaal mu indi ko nag da ko bàkkaat yeneen bàkk di ko wëy xam nga moom dëgg-dëgg yàlla moom mooy gawlo waaj waaj xamul benn gawlo mooy mooy lu may ba lu may bàyyi mm-hmm. gawlo du koy wax wax de mm-hmm. ñu ko bëgg bëri nañu waaye ñu ko xam ñoo tuuti xultu wax naa man Ibrahima Niass mm-hmm. آياسفة قد شبهت باسم فاعل متى تجي فعلا جئت غير عاقل وإنك جمعنا حيث أنت سؤنه وقد جئت فرد فردا دون سبيل المواصل لاك يبقى الحقاق وما دري ولو لاك يبقى دائما هم حليك صلاة الحق بالحق وعدها لألا تكن بطرا في عين عين واصل ولا في عين واصل لغة أه، بحر ma ngay xool sifa ayaa sifatan ay yow melowa melowa xat subiat dañ koo niroon bi ismu faay ismu faay mooy turu turu jëf sifa mooy sifatu ba sàbbaa ah loolu nag dafa xaw grammaire tuuti naa ko firi waaye boo waaye dinaa ko firi man man firi moo xam ne loo ko mën a dégg naa ko firi ba nga dégg ko ah. xam nga dafa am ñetti martaba yoo mën a ñoo ñoo mën a jëf ca jëf ji benn ba fi'al lañ koy tuddee mooy fi'al jëf benn ba ismu faayil turu jëf ka benn bi melokaan borom melo woo xam ne melokaanu kuy melo dafa mel na kay jëf ka na mel ka dañ niroo melo moom de du moom de waaye dafa niroog moom ñett yi ñoo mën a ah, rafaa rafaa kon nag ñu ne jëf ji ko ko jëf ñu ne diwa jëf jëf ji kon nag jëf jë ak ki jëf jëf ji ak ka jëf ki dal si kawam ñett fi nekkoon ah fiil ak faayil ak mafoon ayaasi fatan e eh, yow mi la yoo xamante ne xas subaat dañ ko ñu ko bis si faayil ah man de jaaxal nga ma yow yaa ngi taxaw sa si fa def di ngay def maa tey jii saa di koy fii lan di ma xama fiilu booy taay xàgg ci mel xam yow fi yaay yow yaay fi fiyel bi jëf ji jiit da nga dikk xayri dëgg la man li xam ñu am xel de boo boo ci ma xam fiiru da nga jaaxal ñëpp de ndaxte kan bi nekkee ca daayiratum booba mooy si fa wax daan liggéey foofa jëf joo xam ne kenn xamul la fa liggéeyee ba mu dikkee nag ci martaba wilaayam bi foofa nag yëf gën naa jaaxal kon de man de boo dikkee de yow ni ko isu fayil waaye romb nga sifa sifa nga ni ko isu fayil daa nekk ci ma fe féel ji taxaari taa da nga jaaxal nit ñi de daa ci fii li ma xam ci yow mooy lan woo inaka yow inaka yow mii jamoon yaay ñëpp jamoon mooy groupe aadama mooy kenn te ñëpp luñ la wax ca biir soo ko gisu rek xoolal ci biti su dee gëm nga yàlla wax de wala gëm nga li nga xam ne moom gëm nga ne aadama yàlla moom benn aadama benn aadama ci la amalee mbindeef yi su dee gëm nga ko day mën ngaa wax ne oy nakk jamono yow yaay jamono bi war dëkk xay soo ayn ci fi nga mm-hmm. maanaam mbir yu yëngu kulli yawmin huwa boo gisee huwa moo koy huwa moo nekk ca ca sonu boobu problème boo gis mm-hmm. yëngu-yëngu bu gis mm-hmm. ka koy yëngal moom mooy mooy woo mii mooy mooy yow mii kullu yawmin huwa fi sha'n kon nag wa innaka jamono xëy sa anti soo kon nag innaar ñett yow nag am nga ñaari martaba yow yaay jamono te yaay li ñuy jaaxal waxata ji ci dikk nga fardan yow rek rek rek rek doona sa am forme boo xamante ne mooy seen ba tolloo benn forme bu niroog sa forme amul kenn dong nga lii mooy fardaan yi xam nga mooy bàyyi koy tax ci fardaan yi lii mooy lii mooy ko xam yàlla ni lay waxee yow nag yaay jam o yaay suur mm-hmm. te kenn dong nga door sa lu master ah yow de jaaxal nga nit ñi mm-hmm. indiwaat na xam nga léegi indi na ko ñett de seetal sifa mm-hmm. ismu faayil ak fi'il mu indi ko muy ñett mu indiwaat ko jamoo ak suun ak fartu mu indiwaat ñett man de jaaxal fa falaw laa ki bu taxalu seen xelam te billaahi li moon ne xam ne kii au lieu noonu ko falaw laa ka ñu góoral ko mu xaw a kii waaye daf ko defal jigéenal ko falaw laa kii lu tax mu ne ko kii nag dafa nekk ci ron ki nga xam ne mooy kilifaam kon ñu jigéenal ko ron kilif boo fa nekkee boo wane kilifa nga falaw laa kii bu taxalu ne yow mii de sifa mii yàpqaa dafay des ala xaqaaxan càxam nga rek fama duri kenn du ko xam yow mii nii su taxalu ni yow xàqu day nekk càxam nga kenn du ko kenn du ko xam yow fi mu ne sa yaram bii su amuloon ndax kenn na xam sa roog roogo dañ ca kon roog day des sa roog nga kenn du xam koy koy kat kon nag loolu lay jàngale yow mii sa roog ak sa yaram su taxuloon nag yow mii xàqu day nekk càxam nga kenn du ko xam walaw laa kii bu taxul na yow yow xaa dafay des moom xàqu bi daa iman faw xan moo kenn kenn du ca mën a àgg mm-hmm. ndax mën naa fexe ba jox loo saroo gi mm-hmm. ah kon nag bu taxul sama yaram sa yaram bii ah. du ma xam fu ma ko joxee loxo mm-hmm. kon nag yow mii laa wax yow mi nga xam ne yow yow mi taxaw ñuy yow mi ñu présenté moo tax lay sa kër nit di say ul kenn du wax kenn du ko waxee yàlla kenn du ko waxee sëy u kullu sëy in xaalikul sëy u lépp luy sëy rek dafay dem waaw kon nag lii moom soo ko lay lay sa kër di say def def yàlla <laughs> waaye kon déedéet waaye sëy u bii ni mu présenté nim euh, ak présentation bi muy def kenn mënu ko te ñu nag booba moo tax nit ñii nag moo dikk jël ko place am di ko wanexee kon ñun ñëpp ay jaam bu la neexee jaamam nga bu la naqaree moom jaam jaam fekkul jaam moo la moom bi maanaam wanee kaayam nga yow yaay manifesta kaayam loolu lañ ci tëb wala la keem xaddaa imam am waasi xaale kii dafa xaale xaar su fekkee nañ ko bëgg nëbb ñu ne xaale ha yàlla nekk ci si wax waaye gannaaw daf koy xaatabaane xaale kii yàlla nekk ci yow salaat xàq julli xàq bi xàq yow nag maa ngi lay ñaan mu jël xàqoom ba jullee ko ci xàqoom ba wax daa ci yow rek lu la bëgg su ko defee nga am xàqu un ak xàqu nga nekk numéro deux loolu laa bëgg nga nekk ci yow mooy dikk ci xàqu de di xàq ñaari xàq bu jëlee rek mooy xàqoo comme ni ko tuddee ñaari xàq dañ ko tuddee léeg-léeg numéro un bu dikkee ci deux muy deux kenn du wax un ak deux da nga deux rek kon nag loolu moo fi nekk kat wax daa lu tax li àllaa tàqul ndax nga bañ a nekk batra a di dagg fii ay niwaatiri ci bët ñàkk na ñuy dagg su taxoon yow bëtam ñu jokk fi bët bi lay coupé waaye yow mii ku la xool gannaaw yàlla moo ne ku la xool de moom la xool ku la jox loo moom la joxa kon nag yaa ñu may branchement bi moo tax ñu dëkk waasita moo tax ñu tuddee ko wasila kon nag lii yaa tax kon su taxaloon yow mii xàqu dafay dafay am relation ak xalq yi ak njaamam yi dañuy coupé waaye nag yaa tax relation bi coupé wul yaa jël sa loxo ba la jox ko jël loxo yi la jox ko sa loxo bi yeddu laay faw xam aha kon nag bi ma la joxee loxo bii jox naa loxo kële kon nag ko tax ku tax nag ñu jox la su taxaloon yow boo waxee waa ji kenn du la mën a jox loolu waaye nag dimbali arrangement arrangement arrangement arrangement sant yàlla sant yàlla baaba tey ñu jël ko par benn waxtu ba bu tee wala ñu ko boobu li dawaat ko dem. ba dem une heure temps. aywa kon nag la am mm-hmm. bàyyi lay demande nag des détaillants falxaa la am euh, maa leen xam ne jidoo dina ko am almusaayidu ay ci jeno laa dama ne waxuma koo xam ne dafay dégg moom ki am jenoo la nga xam ne moo moom lam gis mooy ne ana laa laaxa laysa siwa muhammadin du lut muhammad boo ma ne Moussa li nga gis mooy daal laaxu du daara du kenn mooy Muhammad daal laaxu du kenn Muhammad rek walay sa huwa wa dégg nga wa Muhammadu Muhammad lay soo nekkul wax laaxu laaxu de Muhammad moom du laaxu nag mooy Muhammad te Muhammad du laaxu fii nag mooy réerale kaay ma ma jo ma tax ma jaay si bu dikk fii day ne dikk fii dañu dañu fontu ëtt bi rek ñu war a rek sànni leen ci mbay ga ñuy mbaal maa dafa def ci lañ bokk rek fekk dem nañ bu yàgg yow boo toogee ren may nit nit dana toog ne may may yàlla déedéet xamu ne doo yàlla waay <laughs> ah da ngaa waroon boo xamoon da ngay def pot ka ne maay laahu ne maay laahu yow na nga xam nam laahoo laahoom nga ba laawaale la ca su ko defee nga ne pat doo ca toog waaye boo ne maan rek mën a ca bisi ñaari kër nga ma fi indil man maa de yaa laa man yow yow ak laa ak yàlla mu ñaar sax dana ñaar ñaar ah <laughs> déedéet du ma ko nangu de waaye <laughs> waaye gars yi bu ñu si sir akbar waaye man dama bëgg man dégg wolof gi sax ak dégg yàlla gi mm-hmm. dégg la laahu du lu mooy Muhammad te Muhammad du laahu de wala sa xëy du te du lu moom tam bi mm-hmm. man laa wax moom la ba laahu du moom ndax ne demee ñu ne ko ah, bàyyi loolu nag Ah, dafa soxla nga leeral li ko mun a woo misaalu saalik ni ma leen di loolu ka aalamin ma jaas ca àll bi nga ci ne xaalamu nattale la ndax nattale xaalam bi ñu nekk xaalam luñ fi nattalee fi nekk waaye dara lu fi am am biñ nekk ci aalamu nattale bi maa mooy la xam yettaraa ah, dafay feeñ li sax si ñëwee jëm bay seetu film yi aati ca seetu ba jëmm ju taxaw ca seetu ba seet di seetu ci seetu ba ah yaa ma ngay taxaw di seet de illaa ana hunaaka nekk na foofu nag laamir aata loo xam ne bokk rek la ngay gis la bi maanaa ka nga gis yaa ngi koy gis ca biir seetu ba waaye ka ca seetu ko xamul kay seetu ca seetu ba moo xam kon nag kii nga xamante ni moo ñu ne moom dikk na may Muhammad nga gis Muhammad Muhammad ka nga séen ca seetu ba kooku xamul ka seetoo seetu ba moo am ah waaye kay dafal dafal toj seetu ba télévision baa ngi nii gaa yi ba da nga ma am caméraman bi caméra demal sa télévision ba gaa yaa ngi ca débat ba xuloo nga jàppante ba yow sax fi nga toog sa salon bi yaa ngi commencé xuloo yi demal toj kon yaa ngi fay ci xam nga ñi nga xam ne ñoo ngi ñoo ne daal ñooy kon ko koo xamante ni ka nga gis ci seetu ba ak ka nga xam ne mooy waaja bokkul nii la nii la fi macc nii la macc waroon xam ne fi ni àgg amuñ te duñ am tey soo bee dee koo nag ne man la ñu ne ah kon dee nga ndaxte moom waaje moom foo du la bokkaale kenn yàlla moom boo boo ko bokkaale génn ci laa sharika xam nga yàlla waxul ne kenn du ma bokkaale daf ne man dama la bokk ak kenn waa kay waxaasaa waxaasaa lii maqaamun taxawaay la bàyyi ñu say wax de du sas gi ci passe vingt-deux waxaasaa lii maqaamun taxawaay la doonu hoo yës na ko xartul xattaadati naaw ak porantaan xam ko fu mu si porantaan fii nii xaatir mënu fi dugg xaatir su ma xaatir ba rotoon bëri kajo xaatir du fi dugg mooy xaatir mooy xataar euh, euh, xataar ci arab moo dàqa naaw ci picc yi ay mille kilomètres mille kilomètres mën na ko naaw waaye fii nag xaari xaari fii ñi nga xam ne ñoo dàqa xalaat ci yàlla ñooy xataar da fii lu xaarif rëy rëy xel lu ah, da nga may xelam mënta bëtt fii mukk xanaa borom kër gi na kaay rek xaay ma dugal la <clears throat> waaye kenn xamul futu bëtt xel fa ak fii te walaay wax na dëgg xaasaar doonoo xatu xalaat wa tafatati ci lay tojee tasar al akaabidu bi xaari fii ne dañ ci xalaata xalaata xalaat jooy jooy jooy ba seen toj res xotte ko waaye du tax ñu dugg de fii la ko bàyyi wax ja bàyyi na ne lii kenn ko am laa yunaalu bi wastin amwaali wal awlaadi jël ay milliards jox ko addiya jël say doom jox ko addiya sëriñ bi taw nga dugg taw nga jot ci lii ñu ne ko nuñ koy jotee bal yu naan bi mu saxaaba tëri yàlla xam na gaa yi rek xam gaa yi góori pay moo tax man fi dugg de moo tax gis nga suñu question bii nga xamante ni moom na ñuy euh, sànni fii képp ku fi dem bàyyi koo sax bëgg koo may keneen yow da ngay toog fott doo demati <laughs> dégg nga watafatati al akbaadu seen mi ngi ne mu ngi ne mu ngi ne mu ngi دابا كومو ولا ينال داف كو ام ببسل الاموال والاولاد جيل سي دوم سي علال ييب جوخي سي اديا خمغا خمو طالب يغي جوخا في اديا نيوم لنجي فالي دم لن فالي في وام فالي في علال كولا نيه نالا ميل نالا جوخ اي مليار واي سودي كو جار سي خا خامتي مو جار واي مانوكو ماي توك توك توك يو يو سيرين لي سيرين دوكو ماي لي طالب دوكو اب طالب دوكو ماي dem ca tool ya ñu da nga maam de de na nawet ci àll ba pour bay da nga maam ñaq jëriñu wala nuqi ñaq wala nuqi gaa yi de gaa yi xamuñu ñoom seen seen mbóot dafa naqare jot ñaq wala nuqi bàyyi na du ko may de mu ngi nii de saas gi waxoon laa yunaalu boo demee ci paas vingt-deux bi ca suuf ci suuf akbar ca suuf mm-hmm. bàyyi neen laa yunaalu de kenn mënut a am fanaaw bii bi bas leen amwaali suñu sotti ay alal wal awlaadi ak doom mënu ko mukk léegi nag mbir maa ngoog ne këtt na jonn kuñ fi xam kanaa kañ jàpp ne moo fa nekk tey nekkut fa kon ku fa nekk xanaa kenn ka fa nekk dong léegi nag bam demee ba diri bi gaa yi ba xamuñ ko mu jàllat bi na ëtt gannaaw yéen mën leen maa xam maa ngi seeti beneen beneen ëtt ba xam laay mën a xam lépp wa isaa tajalla bu ne tëll nag muhammadun muhammadun kuñ ne fii ahmadiyati cil ahmadiyata ba kooka ñu doon wax kuñ sant ka bu demee ba ne tëll nag ci ñu wax ahmadiyatu ka bi maanaa bu dee nag jëmmi cant ja wala turu cantoo wala fa ñuy sant ka nag muhammad bu dikkee foofa ndaxte laahu moom xam nga laahu moom bu dikkee ba jox bagage euh, Muhammad Muhammad mooy dem léegi de moo tax bu njëkk ba ñu ne ko aynu rahmati dikki ne ko aynu xaq dikki ñu ko talaq moom moom mooy dem de fii doxee kaay wa maanaam gundaandaat bu nga xam ne fi la Muhammad di doxalee ay paronaatam fii la koy doxee mm-hmm. ah Muhammad mooy dox léegi de mm-hmm. fii Ahmad ah bu ca dikkee moom Mouhamad Mouhamad cëpp Mouhamad Mouhamad laa xam fii Ahmad yi fi ah. tajala dafay tëjalee bi kamaali yi léppam lépp lu nekkoon ca moom Mouhamad dafay dikk ca jëmmi Ahmad ca mm-hmm. boobaa tuddatul laahu tuddatul Mouhamad mm-hmm. mu tudd Ahmad ah xam nga li tax mu naq ñu naqaree xam ni nag mm-hmm. moo tax xàmmi la nga xamal ko la gétteeti ne ko yaa njool waaw da ngay xam ne rek man maa xam maa xamu doon de waaw yow gën a xamoo man yow xamuloo doo topp ñu xam ñu xamal la yow laaw rek nga xam man kay faale moom lu may laaw iblis ñu ne moo tax iblis a <laughs> ah, tardé te walaay la tardé iblis moo tardé lu bëri bëri tey ah mooy ne ma la wax ne gaal bi nga ba sa ba terrain bay daw ci digg euh, euh, pays ulo yi <laughs> mu jeexal iblis ne ñu ne nañ iblis ne wàcc naa fii <laughs> mu dikk ci biir Muhammad ñu ne acca nañ dem nga ne déet ñu ne ah, man ko man yonent ak yàlla man ñun alquran hadis ñu biir gaal gi kañ dem li la koy xamal mu ne tajalla bi kamaalihi la nga yëpp mi ngi fii ci amat bi bu boobaa fa laa waxuma kuy dégg rek nekk ci tariqa bi nekk fi dégg-dégg ñun bëggatuñ ci dégg naa dara ah. ak foog naa xay naa mën na nekk bëgguñ ca dara mbóor mu yow jëm yowal xiyaam ak boo xamante kii bëgguñ ca dara ah. ñun jëmmi ahmad lañ soxla jëmi mu laaxu lañ soxla jëmi muhammad lañ soxla ah. jëmi ahmad lañ soxla waaye ñun soxla ëpp na addina ëpp na addina waay <laughs> fa yu saayidu almasaayidu ahmad boobaa ahmad lay lay gis nag léegi mm-hmm. su dee mën nga def mu saa laax de janoo laa wax janoo su ko defee wa yaqulu day wax ne illahu ahmad mii aynu muhammadin mooy aynu muhammad ba wa nafsu muhammadin te mooy nafsu dëbb na aynu a nafsu bi maanaam moom boo bëggee sa boo gisee awoo e, saayu muhammad ba man la koo gisee lu mooy ci e, e, ahmad bii xam nga nu ma la ko waxee suuf yow man laa gis ruuxu lu mooy ci saa yaram bi rek mooy ci yaram gi kon nag kenn ku ne dafa am sa saa sa baat waaye yow boo dikkee fii nag boo dañ laa war a laaj nag fii ak kii kii kan la ñu ne mooy ka nga ka nga masoon xam ka ma masoon xam kat nga léegi wax dëgg yàlla nga dikkoon fekk xale bu ndaw mu ko ci léegi dégg nga maam mu commencé nekk doxal waxambaane ah tarti woon lool léegi mu commencé sangu dee solo. ah kii rek ah kii de mooy saxale góor bi nga fi bàyyoon ci mu dem da doxal doxal ba mu yàgg mu de nga maam de nga maam dem nag dem euh, nekk université ba génn ñu ne kii saxal ñu ne kii de mooy si kii directeur kii kii bi de xale sa xale ba nga xamoon waaw ndax tax na mu changé yow yaa war a laaj nag lu ko indi ci directeur gi de pour <laughs> nga mën a nekk directeur nag kon nag nga ne amar a yoqalloo inna ko xay nu muhammad oo nafsu doom ndax nafsu bi mhm. mooy saatu bi léegi xam nga ayn saat saas bi ba mu nekkee ci sa si saa jàmm ba génn génn fa foofa lañ ko tuddee saa si waaye ba mu ci saa jàmm jaar ci ay jaarwaay foofa lañ ko tuddee foofa lañ ko tuddee nafsu nafsu foofa la tuddee ko rek maanaam xam nga léegi dañ ko tuddee bakkan waaye du ba nafsu duñ ko du bakkan nafsu mooy nite nite lii nag bakkan lii nag gannaaw fi la ngelaw lay jaar ñu ne ko al anfu loolu ci arab mooy anfu waaye ñun arab dañoo gannaaw dañoo xat lay wax ñu ne anfu mooy firi bakkan ci arab waaye nafsu mooy firi nit yi kii nag moom nga ne kon a ah, kii mooy aynu muhammad kii mooy nafsu man ñu ne ko am lu tax nga wax waxi bi ndax kii seetal xale fa ba mu dikkee muhammad a rek kii bi mu fi dikkee ci ahmad bi ahmad bi dafa nekk ñaari laaj mooy aynu ba mooy nafsu ba foo fekk aynu ahmad moom day taxaw taxaw numéro numéro deux foo fekk Mouhamad dafay taxaw taxawaay numéro un ah, ah xam nga Mouhamad bu ma ko wax moom Mouhamad rek la fii bi ndikkee ci amar moo nekk aynu bi nekk nafsu bi is ndax maa sama nekkut foofu baadalaay gannaaw boo gisatu laaw xayru muhammadin lu mooy muhammad gannaaw laaw ndem xam na gannaaw <laughs> moom doo nga fa gis wa innama euh, tuqallibu wér na ne jàllar bi ko te xawaatirul musaay bi xaatirab kay janoon moom moom moom yow sa gis-gis bi moo jàllar bi ko waaye la nga doon gis jàllar bi kowul sansawul yow nag yaa yow yaa gis bët yi mu mel na da ngaa xam nga ba nga xale bu ndaw mu nekk nekk nekk nekk xale boo xambaat léegi kon sa gisin moom mooy changé waaye moom changé wul nit gëm nekkoon ndax changé na ca nu mu tuddoon démb Muhammad nu mu tuddaat tey Muhammad bu demee ba nekk foofu seen nu mu Muhammad waaw kon den tuddaan lu Muhammad yow kay yaa xamul rek waaye Muhammad rek a fi nekk de <laughs> ah kon nag innama tuqalliboo xawaatul musaayib mm-hmm. moo tax Muhammad mooma nag mm-hmm. dañ foog ne dafa changé ba fii toogee fii mm-hmm. déedéet moom moo ma xamante ne Muhammad di dikkoon ci Ahmad booba Ahmad booba tey du fi jóg mukk tey boo demoon doon uti passeport ma uti ko kenn uti ko kooku nga xam ne moo fi du jóg mooy feeñ ci fële te moom doo fi mas sa nekk te kenn du fi nekk moo tax ba fi may waxee boo demee emprunté ba tey kooku rek a fi yaa yaa léegi nag ñu xool fi naa ah, kii de oustaz dañ ko tuddee ah kii de baaba la tuddee kii de samba la tuddee kii de kii de xoma la tuddee baabakat yow yaa fi indi sa changement xaatir yu bari rek waaye nag kenn fi nekk ca yow mi de innama tuqallibu xaatir musayib mm-hmm. wala tabadul mara du dafa nekkul changement ko ci nga xam ne moom la ñu gis ki ñu gis ka mhm. amul benn changement mhm. wala taaddu nu amul li mu de mhm. benn un deux trois quatre cinq déedéet huwa huwa huwa huwa moo du kat bi huwa ndax ñaari huwa ñaari huwa dañu moo di kat bi huwa dong ndax ñeenti huwa ba dañ nekk ku na xam nañ am nañ jiyó am na jiyó huwa huwa huwa huwa comme ni ma la ko waxoon fële rek kon nag léegi nag xam nga liy jaaxle huwa bi mu dee huwa ci numéro un kan la huwa la huwa ci huwa gi nga xamante ne mooy numéro deux bi huwa ba mu dikkee di huwa haat kan la huwa xëy ci numéro deux bi numéro trois bi huwa ba mu dikkee di huwa haat kan la dikkee ci numéro numéro numéro quatre woo bi kulli shay'in alim ba mu ñu ko cib bi waaw moom woo bi moom bii nekk ci woo bi kulli shay'in alimin bii woo moom ban woo li ci woo yi moo tax fa la ay afraad ñoom ñeenti ñële ay afraad lañ waaye woowam juróomeel mii moom woowam naxnu la mooy tëjalaa amin tëjalaa mi nay si huwa ak tëjali mi nay si nawnu tëjali mi nay si nawnu mooy ba bi gën a bi kulli shay'in wa huwa bi kulli shay'in halimun ñeent nga indiaat yépp huwa ci huwa lañ kon nag kooko nag amul changement yow mi nga xam ne yaay gis sa gis-gis moo am changement wala farqa amul séparé baynahuma diggante Muhammad ak Ahmad ilal itisaaf wal imdaad kële mooy jëmmi melowa jëm kële mooy jëmmi kañ may melowa moo tax mooy sifatin asqasula bi fayilin kii mooy melo kii lañ may melowa moo tax euh, euh, euh, ñi koy wane mala jëb lay mu ne doom ak bàyyi soo ko séenee bu màggee ba toll na bàyyi ja ba ni boo ko xool kii du diw kii du moomam ñu ne doomam du moomam mooy doomam kon nag nii lañ nekkee ñoom ñaar ahmad ak mahamad bi ilal ititaaf wal indal is ndax woo moom alasi mooy ko xam ne axrajoo génn ko allah yàlla saani isnayni moom laa génn mooy numéro d mm-hmm. yaa xam ne moom un bi mooy un bi un bi mooy un bi mooy saani isnayni mm-hmm. moom la mënu laa génn de mm-hmm. ndaxte laaw du génn oh. laaw ak Muhammad ba ñoom ñu jëbutoon laaw ci ëwaloom aaxaru Muhammad dikk ci saa yu kii bi mu dikkee nag moom lañ génne te du dañ koo génne de moom moo génn moom moo génn ñu ne génn nañ ko aaxaru jox laaw saani isnayni kii la wasaahiboo ci ànd ak moom nag ah ndaxte moom mii de moom mii ànd ak kii de dafa am ku àndal asidiqul akbar moom te sidiqul akbar ndaxte ahmad bi dañoo foog ne leen la fi nekk dafa génn ba mu génnee dafa génnee génn waay waaja ñu génne keneen moo ànd ak waay ca biir xunt ba ñu tuddee ko ak akbar ah bi maanaam ki gën a rëy dëggalkat yi ka ci gën a ngande mooy siddiqul akbar siddiq bi nag du dafay nekk ñoom a gis yaram agro bañ dikkee yaram mii mooy siddiq bi moom lañ génne mu feeñ nag waaye nag ka nga xamante ne moom la présenté nag kooka nag mooy di ko moom lañ ànd moom lañ génne woon nag mu di ko ànd sa waa ji nag moom di ko ànd ak muy siddiqul akbar nga ne ma moom la de wa baabu madrasatul ilmi kii mooy baabu madrasatul ilmi mm-hmm. bu tam capitalu xam-xam mooy waa ju nga xamante ni moo di ka ànd ak waaje ca kunt ma mm-hmm. te kat boo demee dana xool yaa ngay xool moo tax moo tax gis nga fii ne li may wax ne buñ dikkee ci biti foofu ngay defee tasdiq mm-hmm. mooy mu taxaw ngay nit muy nit nga am yaay bay ma am yaay bay nga nangul ko nag na ko yii yëpp amul yow rek fi nekk xam nga yow dañu foog ne Muhammad leen dafa nekk lu Muhammad te fekk yow ne ba nga dikkee am deet bàyyi yaay coow rek waaye leen fi nekk Mouhamad rawul gis wala gis mu amat leen fi nekk kon nag nga dikk na dëgg dëggalaat moo tax dëggalee ko fii nag moo gën a moo gën a jafe dëggalee ko fële ñépp gëm nañ ko ci ba mu nekk ci kayib waaye yàllaay saay la nit ñi mënta gëm léegi nag si dex mii dikk moom gëmee ko fii lu tax mu gëmalee ko fii dafa nekk atiq lu ko tax nag atiq moom kenn nekkul boromam ku dul kenn ki benn borom la am tant que yaa ngi am ñaari borom doo yëg maqaama si dikkee moo tax fii nag da ngay muridu tijaan boo déggee ñu tudd indépendant murid tijaan mooy koo xam ne balaa nga nekk muridu tijaan yi mm-hmm. da ngay yëg ci maqaam siddiqee maqaam siddiqee ba nga ko yëg da ngay nekk atiix mm-hmm. luy atiix nag mooy kenn mënutulaaj def jàmm du ab yonent du ab waliyu du ab sëriñ du ndey du baay du buur du baadoolo du borom alal kenn yow kenn rek lu mbir mi rëy rëy rëy ah wa maa yantiqu ani l-hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa mm-hmm. xalal ju bëri ku la ko jox pour bëgg nga wax ko lu moom ci ci sa sa gàmmu ga du tax nga wax ko lu noonu de <laughs> ah ah xam nga léegi am na ñoo xam ne bu ñu defee bu ñu defee rek mu kii tiraanga ñu caali moom moo waaye toxal xawa mukk te ci xaalis jox la la neex te caalitoo mer loola ba ba tóoju te yëngatuwoo nga yemale mer gi ki la def lu neex li ak ki def lu naqari yëpp nga gërëmee ko kenn ndax lan mer yow doo jaamu mer doo jaamu kontaan kan nga jaamu yàlla rek nit nag dem ba génn ci fii nag ba nekkatoo jaamu bakkan di la meeree bakkan di bëggee bakkan fee abro foofu rek ba ba nga génn ko loolu doo nekk atiq soo demee ba génn nag ba nga xam ne atiq nga jaamu bakkan dootoo ko ci biir ak léegi nag booba nga nekk na def si diqii nga dikk dëggal fii nag ca doxin wa ca jëfin wa kon nag kii moo baa ma xam nga siddiqul akbar te mooy baabu matu elmi ñu ne Alioune Baab ba alamatu elmi Alioune xamal ne ba nga demee ci fële mm-hmm. xadam bële ndëkk ndëkku lële mm-hmm. yaay Ibrahim ba nga dikkee ci fii mm-hmm. yaay Babacar nga demee ci fële ca wilaaya ba foofu nga nekk Aliou kon fii nii <laughs> moo moo ba def jaay man jàng nañ ko mu ne ah Baab Aliou ni Aliou mer noonu la Babacar mer ci man fekk mooy siddiq mooy siddiq bi kon nag wa ba mat en mm-hmm. waxaatil xadratu boobu peeyi mm-hmm. hiya moom xadratul mm-hmm. xadmiyati wal kadmiyati moom bii nii nga xam ne ba mat en bii siddiqul akbar bi moom mooy baabu xadmiyati wal kadmiyati wax dëgg de ndaxte muhammadiyatu ak ahmad yi bu ñuy dikk ñoom itam dañ leen di lalal lal yoo xam ne dafay tolloog seen laltaay maanaam ruug yaram bu ñuy dikk ñu leen di wàcc bi moom itam dina utal wàccuwaay yoo xam ne mu njëkk man fa wàcce moo tax ma mu ne xajuma ma asamaane xajuma ci xaj naa ci xolob xaj naa ci xolob jàmbar kenn na ko wax tey ñaar ndaxte ba dikkee Muhammad de ba dikkee asamaan mi ngi nii den day joor ar suuf mi ngi nii li càmmooy ci àqane bu ma dikkee sama ndey joor ak sama càmmooy dafa nekk yëpp xaj na ci foofa mooy xat miitu xat miitu kon nag kii nga xamante mooy mooy xasilu xat lii waa dafa xam ñetti way kan ñetti way baay <laughs> ah <laughs> ah euh, nag xadratu uh-huh. mawlana xadratu sayidna su nga de uh-huh. sayidna bii uh-huh. dafa am moom wàccuwaay fii nag mooy wàccuwaayam bu ñu xadra mooy wàccuwaayam suñ wàccuwaay waa ji mooy fii nii woo mawlana te mooy suñ kilifa ma yow bàyyi kii moo kooku mooy mën a abin abbas laa wax في واحد مسلم فين ban احمد ابو احمد ابن محمد احمد seetal Cheikh ba ba muy dikk ci seeya saayir ba nan nekkoon Mouhamad ak Ahmad Mouhamad dikk ci Ahmad ga ba muy dikk moom itam dafa dikk ci Ahmad ibnu Mouhamad baayam tudd Mouhamad ndax kon ndax kooku bàyyi jur la wala bàyyi feeñ la <laughs> ah Tidiane yi nga xam ne moo feeñ ci xaskanu Tidiane ndaxte fële mu bàyyi koon ci kaw moo doon maqaama tijaaniyatu fii mu wàcc fii ci ay numaat yi xaskanu wàcc xaskanu tijaan lañ leen tuddee kon dafa confirmer laxoon lii rek lañ fi nekkee confirmation mm-hmm. seetal nañ nekkoon ci xuntuma ci asal bañ dikkee ba ñuy dem ci Medina ci xunt lañ jaar dem mm-hmm. bañ demee mm-hmm. seetal lii ngay xamee seetal ku nekkoon ci pays ba xamante ni daf koo lewoon dem doom doomu ci asal ba mu dikkee pay bu ko leew domb domm domm moom la dikkaat ci ci ci ëbët ah. damaa bëgg a wax na la eh, eh. <laughs> waaye damaa bëgg nag gars waaye nañ xaw yeewu tuuti nag sëgg <laughs> de kii mooy kii mooy suñu waa ji mm-hmm. barahama lew na ah. sikkar la jël de suukaroo law na ba dem ca ba yoroo ah. ñe su lewet moo yaru laaj dama ko xam ma lewet moo yaru <laughs> xam nga bu lewet yaru doon àdduna tukki waaye nag dara yëngal ko kii mooy Ahmad ibn Muhammad at-Tijaani alxasani yi moom caa seen xaw moom barsaqul aqtaabi képp ku bëgg a doxal a xutbu ci moom nga jaar bu yëngoo nga yëngu nga yëngal la nga bëgg a yëngal moo tuddee ko aqtaab mooy tey kon nekk mm-hmm. xam nga président de la république mm-hmm. foo déggee minister ma ngay doxal dara mm-hmm. moo ko joxal la mooy liggéey lay foo déggee nag gouverneur ma ngay liggéey moom ñoo ko jox la nga xamante ni gouverneur na ko jàllale préfet jàll loolu mooy loolu mooy xutbu aqtaab wa mu midul kaayinaat kii mooy serviteur bi nga xamante ni mooy serviteur kaayinaat moom xadra bi xadra bi de xadra bi laax de xadra bi nga xam ne xadratu ahmad yi mooy serviteur kaayinaat yi wa ruuhaa kii mooy ruuhu kaayinaat yi wa siruhaa kii mooy siru kaayinaat yi baxay sulaa yëbrasu ba nga xam ne xàgg na ba nga xam ne du génn shay'un dara min al xaqiqati muhammadiyati amul lu génn ci xàqatu yow xam te xam nga xam mooy kat xàqatu Muhammadiyya nag xadraam ba amul lu génnee ci xàqatu Muhammadiyya illaa wa yatalaqaahu lu mooy def koo taataan moom mii nii nga xam mooy xadratu Ahmadiyya bi xadratu xadraam bi xadratu Sayyidina Mawlana Ahmad bi moom mooy taataan la bàyyeekoo ci bi nga ni mooy xàqatu Muhammadiyya ah minal asal ca ba ñuy wax ca un kaw a ilal ëbët ba nga xamante ni mooy ëbët ba xam moo nekk ci suuf woo di lool nag li fi nekk yépp moo leen laawaan ëmb leen moom mi nga xamante ni mooy hadratul ahmadiya bi léegi nag hadratul ahmadiya boo bul fa xool ahmad bul ko xool da koy xam kon ñu ñu defoo ñu taxal foofu ñu defar fi ñu tuuti